Guy Sagna ay principe la am munoon nañ ko tuddé lanceur d'alerte bu fekkoon fonctionnaire la wala comme li Sonko def wala kenen dafa gëm ne ko waxé Nelson Mandela lim mu rek sama dundu dund na téméré at lolu du ndam li ndam mom man lan la def ci sama dundu ba soppi dundu ñenen mom lolu la gëm donc du ay prison du ay réprimer ko gis ngeen buñ ko daa dóor dara yëkkati loxo yi ci kaw ñuy dóor ay liif image yaa ngi tey boo demee ci ci internet bi gis ko donc tey lii daf ko jàppee loo xam ne moom lu ko dal ci kaw xeex bi muy xeexal doomu aadama la moo tax day woyof ci moom maanaam jàppe nañ ko doomu aadama boo xam ne dafa dangereux te loolu xam nañ ne atteinte à la dignité humaine la mais atteinte à la présomption d'innocence ndax li ñu njëkk a wax ci droit mooy tant que juridiction waxul ne liñ lay topp yaa ko def dañuy jàpp ne defoo dara déjà ci jàpp bi ñu ne la tey dañuy ñi la war a seet si sax dañ koy xàjji Guy Marius Sagna juróom-ñetti visiteur rek la amagum bañ ko téye ñaari weer ak léegi ñu yóbbu ko ci prison boo xam ne euh, quartier bi nga xam ne dañu ne terroriste yi fa lañ leen yóbbu ci waxu état bi ndax ñun doomu aadama la ñu xam ñetteel bi ñu jàppoon ko ak juróom-ñeenti nit tey ñu bàyyi juróom-ñeenti nit ñëpp ne yow rek la ñuy téye ci loo xam ne la ñu def benn jëf la ñoom ñoo ko waxtaanandoo booy jàpp kañ ñëpp ngay jàppandoo mbaa nga bàyyi jëpp mais bàyyi juróom-ñett yi ne ko yow moom mënuñu laa bàyyi ci nag mu jóge ci institution bi nga xam ne ñun ci suñu jargon ñu ngi koy wax temple de temis la déesse Thémis ñëpp a ko xam kooku maandutee taxoon ñu daal di ko dakkantal justice ak équité partialité indépendance donc tey jàpp nañ ne ci Guy Marius mun nañ wax ne li li mu cristalliser mooy violation yi nga xam ne yëpp kenn waru ko teg doomu aadama wax nañ ko stigmatisation discrimination boole ci nag euh, ñu teg ko foo xam ne jàpp nañ ne moom sax warta bokk ak yeneen citoyens yi seen place te loolu defe naa ne tey boo seetee xeex yi muy xeexal travailleurs yi Sénégal ak mbiru électricité bi nga xamné ne ku ne laalu la itam da ngay wax lu la neex lool yépp tey ñu considérer ko comme un ennemi parce que japp nañ né day empêcher un pouvoir politique mu tourner en rond motax tax bi warna dépasser non seulement militants des droits de l'homme mais dinañ ci profité daal di yenen yeneen yo xamné parce que organisation de défense des droits de l'homme d'abord warna fexé ba violation baña am mais bu violation amé waru galam moy mu dénoncer ko fexé ba violation bobu taxaw mais aussi fexé ba violation bobu bañaté am tay nak amuñu Sénégal comme yenen dëkk yi comme Bénin ay institutions judiciaires yo xamné bu lu melni amone da ngay def requête devant la cour constitutionnelle parce que détention arbitraire amna ñu mën ci wax dans les 24 heures amul Sénégal euh, liberté provisoire ngay mëna a déposer té liberté provisoire bu procureur bi une réquisition contraire danaka juge bi presque amna na mais lié mais même bu passé outre réquisition yi bu parquet défé appel tant que cour suprême est fofu mënoo génn donc gis nga li ñuy wax tey ci système archaïque ak inégalité des armes procureur mooy jàpp mooy choisir mode de règlement bi te pendant poursuite yëpp dafay am voix prépondérante Madame, moo yor te procureur dafa ci nguur gi la wekku bu une instruction écrite lu ko nguur gi wax moom lay def war politique bi donc du question indépendance personnelle des magistrats magistrat yi jàmbaar lañ mais système biñ nek mayu len tay ñun liggéey liggéey bo xamné dinañ garantir droit fondamentaux des citoyens té état de droit liko lal moy ay institution yo xamné dañuy jouer rôle d'arbitre té pour ñu mën ko jouer il faut ñu don ay institution yu indépendante impartiales mëna def sen liggéey tey lolu amuñu ko donc xex biñ nara sumbu fan yi ginaaw yobbu mbir mi fiñ ko wara yobbu ci yoon mooy fexe d'abord ba réforme ci conseil supérieur de la magistrature ñu indiwaat ko waxuñu ay réformettes comme yi fi amoon nañu may magistrat yi ñu até ci kaw seen conscience ak li loi bi wax mais mun a aussi garantir euh, liberté sénégalais yi seen droits fondamentaux ñaareel yi mooy juge de la détention de la liberté tant que procureur mooy buum di buumi te procureur mu ngi nekk ci ndigalu autorité pouvoir politique bi bu kenn yaakaar ne poursuite yu mel comme yu Guy mari Sagna ay liberté provisoire moo koy génne Babacar Diop bu génne tey lan moo ko génne mais xam nañ ne bu gënul woon université jàng du am dañuy yelwaan avocat yi ñëw leen def liberté provisoire ñëw leen gaaw pour génne Babacar Diop parce que pression bi syndicat yi ak étudiants yi indi woon mayeetul woon ñu téye Babacar Diop prison donc li génne Babacar Diop du feey mais pression bi am université donc ngeen xam ne du justice mooy génne nit ci cas yu mel nii bu doonee cas normal justice baa ngi liggéey normal mais cas boo xam ne pouvoir politique bi moo ko dicté D'où justice moy indi solution tay rapport de force médiatisation biñ ci def mobilisation sénégalaise. solidarité wara am ci kaw Sagna mais ça ñom parce que li boo nee Guy Sagna la dal daluma rek yaa ngi donc ku ne war nga mobiliser